internationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew. seneinfo. internet yi ñuy bàyyi xel ci ñu ngi leen di nuyu fas yéene defal tënkub xibaar tey samedi di 5 novembre ñu tàmbale koog xibaaru biir réew mi. gannaaw bi ñu amalee ay waxtaan nag euh, ngir daal xool nañ la ñuy utee ki pexe wàññi li nga xam ne moom mooy dund gu cher gi fi mu nekk nii nag dañ cee bugg a jëli dogal loolu nag tax na ba bésu ba tey bii njiitu réew mi Macky Sall. dina jiite ab conseil national de la consommation ñu war ko amalee nag fële ca palais de la république bu 16h jotee ci boobulee daje nag comme ni ma leen ko waxee léegi rek dinañ ci valider li nga xam ne moom mooy proposition yi nga xam ne kon defoon nañ ko ci yooyu la waxtaan ngir wàññi li nga xam ne mooy njëgu produit yi ak itam service yi nga xam ne moom la ñuy gën a jëfandikoo. Sénégal fekki na kuréelu réew yi nga xam ne ñoom ñooy euh, produire pétrole ci Afrique ñu koy woowee organisation des producteurs de pétrole africain APO loolu nag mu ngi am gannaaw bi nga xamee ne conseil des ministre bu boobulee kuréel euh, ñoom ñoo daje woon di waxtaan ci seen 43e sommet euh, fële ca Luanda di Angola dem si ajuma ji ca lañ jël dogal nag ne kon Sénégal daal ubbil nañ ko bunt yi kon mu bokk. ci boobule kuréel ki nga xam ne nag euh, moom mooy euh, ministre du pétrole et des énergies bu Sénégal di Aïssatou euh, Sophie Gladima moo fa teewaloon suñu réew. Pape Diop di député nekkit njiital parti bii di bokk gis-gis moom nag tekki na ndombal tànkam foofule ca. assemblée nationale bu ñu sukkandiku nag ci l'observateur bind na sax ab lettre boo xam ne kon jébbal na ko président ba di Amadou Mame Diop ñu ne nag moom convenance personnelle daal moo tax kon mu ne mu amal boobule eh, démission wante nag eh, ñii di waa journal Les Échos ñoom nag gën nañoo xuus ca mbir ñu ne sax Pape job daal moom buggul turam ak li nga xam ne moom mooy personnalité daal. Eh, jaxasoog assemblée nationale bu bees bi nga xam ne sax dañ fa gis euh, ay mbir yoo xam ne mbir yu doy waar la euh, loolu nag tax kon ba euh, buggul daal ñu ko cay tudd les éco na loolu tax mu jël bi la dogal moom nag kii di Aliou Sow kii di Aliou Sow sax ñu ne moo ko waroon a remplacer ci liñ tëralee mbir ya wante nag moom Aliou Sow xam nga ne dañ ko def ministre kon nag euh, Pape Diop ñu ne Moussa Diakhaté di porte-parole am moo koy uutu foofu la ci assemblée nationale. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy nag ubbiteeg vingt septième conférence des Nations Unies sur le climat mu war a am suba ci dimanche ji fële ca Sharm el Sheikh nekk ca Égypte. COP boobu nag euh, nekk ab conférence boo xam ne nag euh, conférence internationale la boo xam ne kon chaque année dañ koy amal te réew yi nga xam ne euh, ñoom ñoo signé lii di convention cadre des nations unies sur le changement climatique ñu cay teew bi la yoon nag dañ ko jàppe daal COP boo xam ne COP continent Afrique la xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleek ak jéye ju xew fële ca Russie ñu ne foofu nag ci ab kafe boo xam ne mu nga nekk ca dëkk bi ñuy wax Kostroma moo am ak lakk ba fukki nit ak ñett ñàkk ki seen euh, bakkan buñ sukkandiku nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité locale ñu ne sax lakk gi mu ngi am démb euh, ajjuma si guddi gi kon euh, wante nag ñu ngi koy doog a fay ci suba si nee na it am na juróomi nit yoo xam ne am nañ ca ay gaañu gaañu. ca France Jordan Bardella moom nag nga xam ne sax moo nekkoon président par intérim bu rassemblement national bésub tey bii nag euh, fal nañ ko mu nekk li nga xam ne moom mooy président bu parti extrême droite euh, boobule euh, war a nag kon mu uti nag ki nga xam ne moom mooy Marine Le Pen loolu sax am si jamono joo xam ne ñoom seen parti boobu di rassemblement national mu ngi. jànkonteeg ay jafe-jafe ci bi nga xam ne sax fi mu nekk nii dañoo dàq kenn ci ay député dañ koy jeexal xibaaru sport sénégalais bii di wuyoo Dame Fall moom nag euh, dafa gagné medaay door ci li ñuy woowee free jump ci troisième édition bu World Skate Games muy nag euh, championnat du monde de roller bi nga xam ne mu ngi amee fële ca Argentine moom nag dafa def benn saut bu am solo un virgule soixante dix un virgule kon euh, la tëb daal ba tax kon mu am boobule médaille d'or moom sax li ni mel defoon na ko ci 2017 loolu nag day tax ba sax day battre record mondial ci compétition boobule. ci basketball AS Ville bu Dakar euh, moo gagné li nga xam ne moom mooy finale coupe du maire euh, démb ci jigéen ñi. fële ca stadium Marius Ndiaye gannaaw bi nga xam ne nag dafa dóor euh, équipe bii di Jeanne d'Arc de Dakar ci soixante neuf soixante cinq lii la ñu doon tey ci xibaar rafet seen tool lu ñu jox daje altine jaa ngeen jëf